Kenya has become a member of the League of Oil Exporting Countries after its discovery of wells in the country. President Uhuru Kenyatta announced that the first deal to this effect was concluded on Thursday. Some 200,000 barrels of oil were exported at a price of 12 million US dollars from the East African nation. Following this development, Mr. Kenyatta said it is now up to the Kenyans to ensure the proper use of their natural resource in order to make their country prosperous and free from poverty. Kenya discovered commercial oil some seven years ago in its Lakeisha Basin, estimated at over 550 million barrels in proven and probable reserves. Let's take a look to, uh, at this insight and listen to the President Kenyatta. I am also happy to equally announce that uh, this afternoon, as a republic, as a, as a country, we have joined the the world, a little bit initially in very small quantities, but we have joined the oil exporting countries of, of, of the world. We are now an oil exporter. Our first deal was concluded this afternoon, 200,000 barrels at a decent price, $12 million. So I think we have begun our journey, and it is up to us to ensure that those resources are also put to the best use to develop our country, to make it both prosperous, and to ensure we eliminate poverty in Kenya. wa mam jibe lolo ne ka ah, mbirum oil fofu nono sa Kenya nga xamne a ah, deka bu ne ka lola mo ñaan a ah, deka boka si ñi nga xamne dañu deal in oil way mu ne ka lo xamne tamit if not tackled with honesty and transparency a daf de indi cholo bare ci bir deka gis nañ li di Kenya ñom recently door nañ di export li nga ne moy oil xamna fi ak diri ay at rek dinañ gis ñom tamit changes yu bare ci sen economy bi waaw Kenya kay fan man a ce que duñ jéem a dem out nationalité sax <laughs> ndax ni ma gisee président bi ni muy joxe speech bi sax. muñ bi mooy tey comme ni nga ko waxee. dafa mel ni Bagwe to Kenya Bagwe bi dafa mujjee former from Italy to Kenya. waaw ragal naa nag mu mujjee foofu ndax euh, comme ni mm-hmm. bu fekkee jamono bu ñu toll I just hope ne seen situation bi du nekk like that nga xam ne a they live in abject poverty. yëkkati uh, which is waaw am naa expectation yi ni ma gisee président bi ak speech bi ak lim sensitise askan wi pour ñu utiliser li nga xam ne moom moo nekk uh, income bi am naa expectation bu rëy ne ñoom daañu use li nga xam ne mooy uh, export li nga xam ne mooy owel ba hmm. Kenya ci boppam ñu gis ci développement bu nga xam ne dina gaaw ci ni nga ko waxee xëy na ci diiri ñaari at ñett ci kanam mm-hmm. ñoom mboolem lu nga xam ne soxla woon nañ ko ci natural resources mm-hmm. dañ ko mun a amal seen bopp jëfandikoo li nga xam ne mooy diw bi nga xam ne ñoom am nan ko mm-hmm. ndax tey comme li nga wax la dégg nañ réew yi Afrique sow jant yu bëri comme ni nga ko waxee Nigeria. Mm. coow lu nuy dégg Sénégal ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne. Mm. ñëpp am na yaakaar bu rëy ne. Mm. balaa diw yi ñu koy jëfandikoo ci biir askan wi. dafa am coow yu nga xam ne day am ci biir. ñi ko jiite ak askan wi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk yu nu mel. kon loolu lu jar a bàyyi xel la ñu xool naka lañ mun a def pour. ñi mm-hmm. nga xamee ne ñoom ñoo jiite seen askan ak seen njaboot. Mm-hmm. bu fekkee jumtuwaay yu mel ni am nan ko. na mm-hmm. use li nga xam ne mooy opportunité bi ba réew bi seen bopp. ñu mun ci gis koom-koom bu nga xam ne ci nu mu gën a gaawee. askan wa daañu ci gis seen bopp. loolu mooy liñ ci mu ànd ak honesty ak transparency